mbokki internet yu DKR 221 dal leen ak jàmm ginnaaw ndigal li nga xamante ne nag daal dinay bàyyeekoo ci xalif général des mourides ginnaaw di fatu ko tegu gët dana daal di toog fanweeri fan ak ñett yoo ne nag daf koy daal di lëlu maanaam fukki fan ak juróom ci weeruk mars la fas yéene dalalaat ñi nga xamante ne rek ñoo di koy seet si ak ñi nga ne nag ñoom ñoo di disciple di nongoy ginnaaw ndigal loolee nag nga xamante ne xalif général des mourides daal dina koy xamal ñi nga xamante ne nag ñoom ñoo yor garde rapproché digganteem ak ña nga xamante ne rek ñoom ñoo di bëkk néeg ya ca waxtu boobee nag mu ngay xamle ni moom dootul dalalati benn gan ginnaaw bi nga xamante ni fanweeri fan ak ñett la fas yéenee daal di lëlu loolee nag daal di nay doon loo xamante ni sëriñ ba dana ko daal di amal ginnaaw ay ziyaar yi nga xamante ne nit ña ñu ngi ko koy faral di def loolee dootul mën a antu ca waxtu boobee nag jàpp leen ni fukki fan ak juróom ci weeruk mars bu fekkente ni daal di nay génn ca lëlu wa nga xamante ni daal di na cay nekk bu fekkente ni nag ay gan danañ daal di ñëw di ko seet si ginnaaw bi loolee nag jàpp leen ni ñii di garde rapproché ñi nga xamante ni ñoom ñoo di bëkk néegi nee nañu rek su boobaa da ngay daal di yëg lu bi sàngam bëgg naa faa ñëw ko defee ñu daal di koy àggee sëriñ ba waaye nag kenn dootul tëbati rek ñëw ziyaar ki nga xamante ne moom moo di xalif général des mourides ndaxte nag ñu ngay xool wàllum wér-gu-yaramam ak tamit li nga xamante ne moom moo di wàllum kaaraangeem ginnaaw bi loolee nag suñu sukkandikoo ci suñu naataango ya nekk ca Dakar Actu ñoom ñoo ñu daal di boobu la xibaar xibaar woo xamante ne sax ñu ngi ko daal di nangoo ca ña nga xamante ne nag jege nañu loolu ki nga xamante ne moom moo di xalif général des mourides di sëriñ Muntaxa Mbàkke waxtu boobee nag ñu nga samp ab laajte ginnaaw bi nga xamante ne njiital Pastef Ousmane Sonko daal dina fay ñëw seet si xalif général des Mourides ca ginnaaw ga nga xamante nag ñoom ñoo di bëkk néeg ya daan ne loolee lépp dara du ci dëgg ginnaaw bi nga xamante sëriñ bi at bu yàlla sàkk bu noppee ci ab màggalu ko poroxaan su ca noppee rek dafay daal def nag li nga xamante moom moo di ab lëloom lëlu boo xamante nag mënees nañu kaa jàppee rek daal